sant nag président Macky Sall ci cant gi ci ndigalu Cheikh Mamadou Mountakha démb la ma waxaat ne naa ko jot la cant cant gi li ko waral mooy bi màggali Tuubaa gi jàllee daaw ba bañ gàmm ba mat ñaar fukki fan sëriñ bi damay yónni ci moom yaari mbir benn bi mooy wàllu ndoxum Tuubaa ndax daaw màggal gi ndox mi dafa manqué te xam ngeen ne màggal gi at mu jot nit ñi dañuy yokk kon waris na ci def yitte ngir xool nu ñuy fexe ba déwén nam demee mu bañ mu bañ ne demewaat ba ca des mooy ku ne xam na ne màggal gi dugg na ci biir nawet mbedd Tuubaa yi bari na ci loo xam ne état état bi defoon na ci fukki milliards waaye Tuubaa dafa rëy la koy defar assainissement dana mat téeméeri milliards wala mu ëpp kon da ngay tàmbalee fenn di dem sëriñ bi yónni ma ca moom ñaar yooyu mu bokk ak yeneen yite waaye yooyu mooy li ci gënoon a jege màgg bi ba mu ko ko waxee itam mu def ci yite yite ji mooy fa saasa la daal di joxe ay ndigal ndigal yi résultat bi ñëw na tey mooy ñeenti forage yoo xam ne incha allah bu àndee doolu suñu borom balaa màggal gi dana àgg ak yeneen i seetlu yoo xam ne ñu ngi koy defaraat boole ci juróom fukki kilomètre ak juróom ci réseau bu bees boo xam ne dana dugg ci biir ndox mi ngir loolu gëm nañ ne dana soppi lu bari ci ndox mi waaye ci biir wax ji nag moo xamal ma ne Touba ndox mi dafa am li ñuy wax plan directeur ñoo xam réseau bi ndax li cëpp dafa yàqu kon danaa wut benn cabinet mu def étude xool réseau bi ñu xool ni ñuy saafara ndoxum Touba ak ndox mi nga xam ne ñëw ak ndox mi bañ a manqué loolu itam dox na ci jéegu ba wax nañ ma ne ki nga xam ne mooy cabinet bañ jox liggéey bi ci weer septembre bi daa tàmbali liggéeyam loolu itam kon def na ci te def ci pësteef def ci taxawaay kon seriñ bi ko ci sant ko ci gërëm ba ca des it mooy wàllu assainissement bi assainissement bi itam assainissement bi jëm ci wàllu ndoxum taw bi fa sensé it la jox ministère bi ko yor ndigal ñoom itam def nañ ca lañ ca war def ba jël bi benn 3 milliards boo xam ne ci ndox ci assainissement Touba la jëm bokkut ak assainissement bu jëm ci fosse yi ñu doon wax ci fan yii waaye bii ci wàllu taw bi la jëm yàlla def na itam ñoom lañ ca waroon def def nañ ko ca waroon naa tàmbali sax laata màggal gi waaye bi mbas mi xewee nag mu am ak yeexte ndax xam ngeen ne loolu àdduna sépp la loolu itam ñu nongul leen ko waaye incha allah bu màggal gi jàllee ñoom danañ ko danañ ci jullu ngir àggali liggéey boobu. te loolu itam bu àggee daa doon loo xam daa doon ndimbal loolu nag bokkut ak tëli yeeg yeneen yi ci des ak làmp yi nga xam ne senegal gépp lu ko def waaye beral na ci Touba wóoloobu ñaari milliards loolu itam sëriñ bi ko sant wax di ndox mi itam def na ci ñaari milliards ak ñaar ak téeméeri kon loolu jéego sëriñ bi koy sant bu baax di ko gërëm ndax euh, sëriñ Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne du sant ku ma deful dara kon lépp loo xam ne sëriñ bi gis naa mu manqué ci dëkk bi ndegam xam na ne bu waxee moom mu dégg ko te lu mu ca man dana ko jëlef moo tax lu mu ci yëg xam ne manqué na wala war na koo def sëriñ bi ko waxal boppam bu ko waxee itam fa saasa la mu ca man dana ko jëlef ndax man mii ne ci diggante bi xam naa ci dara kon ñu ngi sant ñëpp diggal ñëpp di ñaan màggal gii nga xam ne ndigalu sëriñ Tuubaa la ñu àgg ca jàmm génn ca jàmm day ca tawféex day ca ndimbal te ñëpp it nañ ci ànd ak dalum xel ànd ceeg rafet jort ngir xam ne sëñ Tuubaa kat mbiram suñ borom feggal na ko ci aafatu ak kaddu kon suñu xel war na dal yaqin sax la ci war a am wa rahmatullahi taala wa barakatuh